sëñ bi Gomis euh, Pierre Mbakhane Gomis ñu ngi lay nuyu. ñu am waxtaan wi tey ngay àddu ci turu cadre unitaire syndicat de transport routier euh, tey jii ngeen nam amal le premier ak le deux gi ñu dëgmal weeru décembre ci ndorteel ba benn grève ñaari fan ndax dëgg la yéen a ko maintenir ba tey. waaye boo gën a waral ndax tey nii may wax yow nii camarade yëpp ñu ci euh, cadre unitaire boobu nga xam ne moo lëkkalee boolee yëpp seen seen seen centrale syndicale. Mm-hmm. ñu nag CNTS Otan bu mu dugg a jiite. Mm-hmm. waaye dañu def euh, dañoo dem ba gis ne euh, président garage yi président regroupement garoutier yi mm-hmm. président fédération yi ak population bi ñoo dem ba gis ne daal li ba li li mu li jaaru mooy ko bay te kenn ku ne di bay yor leeram nañu boole ci digg biir tool yor indi yi yor roto yi yor lépp mën a gàjj mën a béy mu set mhm. loolu nag moo tax ñu créé benn cadre unitaire bu regroupé syndical si yëpp yi ni si yeneen central yëpp mhm. kon tey du wax ci turu CNTS du wax ci turu CNTS mais ci cadre unitaire boobu nga moo ñu lëkkale yi mën na am ci loo xam ne ko demandé yàlla tey mu aboutir mhm. di ñaax nit ñi di yëgal waaye li ma bëgg a leeral ci tey occasion bi nga ma jox ma soxna si pour ma mën a askan bi mhm. mooy lii du grève bu chef de cette place ah déjà lu ko waral sax grève waaw li ko waral mooy ay ay motuwaay yu ñu jël mu jëm ci lépp li ga xam moom la ñu naan les pièces afférentes à la conduite du véhicule muy permis mhm. muy carte grise muy agrément muy autorisation transport ñu naan licence mhm. ba ci plaque d'immatriculation ay réforme état jël ndax xam nga dama bëggoon nit ki boo ko loo bëgg bëgg ak loo ko yéene yéene boo ko naan kaay ma sol nan koy nan ko ban la bëgg couleur ban genre pièce la bëgg ensuite ban façon ñëw la bëgg nga sa ko nag pour taayam mm-hmm. mais rek pour ne lii la ñu lii la ñuy def bokkul ak dañoo bëggoon nangam leen la seen xalaat bu ngeen ci àndee ñu def bu ngeen ci àndu ñu bay ñu bàyyi loolu mooy jox ni cër loolu mooy jox sa population cër loolu jox sa nawle cër loolu mooy jox kilifa ni yow xam nga man ku mel ni man te bar naa ci borom man maa ngi doon li ma doon ba tax nga dama woon yi dama laaj ci transport jamono Abdou Diouf loolu jiitu Macky Abdoulaye Wade loolu jiitu président Macky Sall kon xam ne kon ñaata góor a ma romb ma fi kon kooku bu ma toogee ak yow dama war a jox ci xam si jox ay nit ñi ñoo ñu jox seen kóolute ñu doon ay syndicat nekk ci ay central central nekk ci biir constitution Sénégal loolu ñu ko ràññee ñu ne syndicat du ay caaxaan mhm. du ay xam nag xaw ma nag syndicat bu ci di ka faase ko waaye syndicat bi xam li mu doon dëkk dëkk dëkk dëkk xam lan mooy syndicat dëkk dëkk xam lan mooy central syndical lan la dëgg-dëgg war nañu fexe ba ku muy waxal nga jox ko cër ku muy waxal nga déglu mais moom mu joxe cër di déglu nit ñi. d'accord nga ne sànq léegi nag tey nii léegi nag grève bii. Mhm. damay wax Sénégal yëpp képp bépp ci yow moomu laay jëkkee moomu di. dëgg la bu dee am nga permis ci la bokk ci nga bokk bu dee am nga oto ci nga bokk bu dee am nga moto sax ci nga bokk <laughs> kon mbir mi du ma place wala minicar wala bis wala camion wala tata. lu tax loolu kullu ku yore moteur dama bëgg le premier ak bul bul bu ko laal. kon daal na ñëpp dox le premier ak. na ñëpp gaare seen toog seen i kër nañu toog seen i kër boo amul loo boo amul war foo jëm. waaw xam ne kon ndi ndigate bu dul oto kay kenn bu oto amul saxaar du dem bu oto amul avion du dem bu oto amul bateau du dem gaar du dem mhm. kon nag ñuy jox oto ak waa oto. ak ñi ciy liggéey ak ñi ko moom ak ñi ciy ay ñi ciy jox ay mboy tànk nañ leen jox cër mhm. ñun duñu noonu état duñu noonu gouvernement duñu wu jëm dañoo nekk bokk ak moom xalaat bokk ak moom réew mhm. bu baaxee baaxal ñu bu yàqoo yàqul ñu bañ mu yàqu yoon nañu ne ñu war a taxaw ne lii day yàq mooy tu nañu ko moytu ñun ñëpp lii day defar day baaxal dañu ko def ñun ñëpp mhm. loolu mooy soog bi ñu nekk ay cinq ans gar war la yoon may yoon may ñu saaga nit yoon may ñu xas yoon may ñu duut waaye yoon may nag bu ñu demee bay gis ne ñi ñu ji jox kàddu yoonu sañ-sañ ñu war a wax war a bañ lu dul dëkk war a nangu dëkk dëkk dëkk bu ñu gisee kon dañuy ne Sénégal gépp nañu dem toog le premier ak le deux déglu ñu bu ñu gouvernement bi woo woo a ñaara am rek ci àddina dara jël ci wax dëgg ak lu dul dëgg dëgg amul wax. monsieur Gomis lu la. monsieur Gomis. waaw yéen bu yàggul woo nañ leen fi waxtaan. ngeen lànk ne du ngeen dem lu waraloon lànk gi. xam nga ñun xam nga ñun yàgg nañu ko woo. Uh-huh. waaye na xam nga léegi dañoo toll ci jamono yu golo ak golo. xam nga bu jë golo ak xaj. bu golo dàqee xaj ba ci garab rek muy. bu xaj dàqee golo ba ci garab rek go xaj rek. golo yëg xaj du mën a yëg mu tax ba maar dem golo dem yoonam uh-huh. léegi nag golo golo xam nga tax golo golo la uh-huh. banque yéen ñu jógee jàng ba doon li doon ñun ci jàng banque yoo la ñu man at mi président euh, gane at na ma at moom laa dugg école man <laughs> at mi mu gane at na ma laa dugg école man kon fi ñu toog bu jógee fa ñun fa la ñu toog xanaa yàlla leen jagle na ñun fal ñu yor suñu gouvernement ñun yàlla jagle ñu fal ñu yor ñuy xeex ak ak yelleefu doomi aadama yi kon kay war nañoo mën a ñu ñoo nax mun ñuy woo nañ woo ci loo xam ne pour lu tegu ci joxante cër la lu tegu ci dëgg la lu tegu ci jub la ñun du ñu wujju gouvernement. Hmm. jotuñ ko loolu mukk. lu ñu noonu gouvernement waxtaan bu amul nan ngeen di trouver solution. waaw xam nga xam nga waxtaan sax day am waaye waxtaan boo xam dañ koo ci ay ay dëgg si la ci nax li tubaab naan simulation. mel ni am saal la soo xam ne bugg laa may nga ñëw ba yàgg muy xool dafa am biir poos bokk la am teel loolu la ñu yéen dafa mel ni ki ngeen di waxtaanal moo leen doyul njiitu réew mi daal ah. euh, moom ngeen fas xam nga dañuy euh, xam nga président Abdoulaye Wade mhm. en deux mille cinq bi ñu permet ci lu loo xam ne mhm. sax ay suutal boobu suñu syndicat doo nga loon CNTS wa kon boobaa bii bii gën a tar bii gën a rëy ndax mosuñoo def na di wër Sénégal di wax ak nit ñi mais tey bi Sénégal di wax ak ñi kon mbir mi li ñu fonk la. Mm-hmm. boobu ñu fonk nag président am na renseignement ndax fu nga fa kon waroon naa tax mu woo woote. Mm-hmm. moom mm-hmm. mu dégagé ñëpp woo ñu. rek ngeen bëgg a waxtaanal. dama ne moo ñu gënal bu dee yëgul mu yëg bu dee xamul mu xam bu dee gisul mu xam gis. parce que nag li ma ci yow mooy président Ablaye Wade dafa ñu woo en deux mille cinq. Mhm. biir bi ñu ko waxee suñu pare dañu ko. lu mu ci dañu ko doon bind di ko yóbbu di ko yóbbu fi ñu ko war a yóbbu ko koo jox. Mhm. kon moom président amaan dafa yëg d' accord mën naa nekk dafa gisul mën naa nekk dafa déggul mën naa nekk nañu woo ba teg bët ñu jàkkaarloo ak moom ni muy jàkkaarloog éleveurs yi ni muy jàkkaarloog mareyeurs yi ni muy jàkkaarloog ñeneen mu mënta jàkkaarloog courant transport amul. te ñooñu ñu Dakar ku ci dox ñun ñoo tax nga dox buñ téye suñu loxo doo dox te bu nañ egg ci le premier décembre ak le deux décembre bu soobee yàlla dina xam ne ku muy ku ne ñu nu ko gën. mbaa bu ñu musul am la ñuy gis ndax ren gis na ne wala bii yoon. bu nu yàlla dimbalee bu nu dama ne bu nu yàlla sax ay tournée. dama ne bu nu yàlla dimbalee. Hmm. ci kàttan mbaam comme dañoo jóg rek pour xeex. ndax gis naa ne yéen seen morom yi ñi ñu gën a jox kàddu. Hmm. mooy politiciens yi surtout fi ñu toll mais lii moo raw fuuf fuuf moo parce fuuf fuuf moo gën a am te nit fuuf que politique ah, waaw ku nekk ak sa waaw waaw kon kan nit ñu bàyyi nag ñuy wax mais wàll dinañ suñu wàll dafa xaw a doy waar ndax tey réew mi sama rajo la may nga am waaye nag gëñ gee damaa wa tawat doon gëñ gëñ <laughs> may wax ni d'accord dama ni li yoo mooy li xeex nii jigéen lañ koy xeexal góor lañ koy xeexal mag lañ koy xeexal ndaw mag ndaw lañ koy xeexal muy Sénégal lañ koy xeexal ak ku yeewoo Sénégal mooy dama jël ay ay matuwaay ko ci permis jéeme ko ci carte grise ko ci licence jéeme ko ci agrément jéeme ko plaque d'immatriculation mu kon booy tënk jéeme ko ci oto bu ñëw te ko moom dootu bi taxaw ne rek kon ñooñu nag li ñuy xeexal li nga ne bii gis nañ ne même bu doon yoon Sénégal yi am attanuñ ko attanu guñ ko madam nañ ko wax tey de Sénégal daa am ñu ko a teg loxo Sénégal yi attanu guñ yoon Sénégal eggagul sax loolu mooy li ñu sonal. ne gouvernement bi da far ginnaaw ci muy jël di ko teg Sénégal borom kër sax boo xam li waa këram attan bu ko bëggee indi bi am problème. moom wala réew. ñu ah. jeexaleeg euh, geste bi nga xam ne euh, seen tutelle def na ko moom wàcc na si tali bi xool la fa xew. ngir rek mën a nekk ci seen po. tey na saafara mbir mi wala. waa xam nga léegi yaa àtte bi yàlla ñëw. Hmm. ndax ministre bi kat yàgg nay jaar Kébémer. Hmm. yàgg nay jaar Louga yàgg nay jaar feneen. Hmm. waaye yàgg nay gis lii. moroomam yeneen ni moom ak ñu ko féete ju yàgg nañu gis lii. li xew ci télé bi umpul kan na ñëpp a ngi koy gis góor jigéen mag ak ndaw bekañ sala daawari weñ sa daawaraat mhm. ñu koy seetaan loolu doom rek yàlla ay def tedd boobu ministre bi gis ba jël ci ay mesures mais damaa bëgg nag ministre yi nga xamante ni bii ñëpp dañoo laal ci ñun muy intérieur forces armées mhm. muy justice muy finance muy transport bi mooy suñu tutelle mhm. dama ne ñëpp nañ wala nga tax ne ñun ñëpp ñu toog ci saabal may waxante xam nga mbir moom yàlla àtteel boppam yàlla muy àtte dëkk ak lu dëkk mu àtte boppam moom moo dox ba gis moom en tant que ministre xool ministre d'intérieur ak moom mais war naa fekk tey day am rien que même loolu rek war naa fekk sañu war sa mhm. bu fekkoon ci réew moo xamante dañu joxante cër la gëm dëgg nangu dëgg loolu rek war naa tax tey ñu daje d'urgence rencontre d'urgence rien que pour ce point-là alors loolu nag loolu seede kon ñun damay waxaat encore une fois mhm. ah xaw ma kuy politique di xeex régime mais du man xaw ma kuy politique it ànd ak régime du man xam nga man li ma àndal état laa àndal état laa àndoon ak Abdou Diouf mu laa ànd ak président Abdoulaye Wade état laa ànd ak président Macky Sall mii na leer nañ àndewuma ci kenn politique mu ànd ak kenn politique état laa ànd ku ku ku ànd kon bu ñuy wax nit ñu déglu mais na nga ko wax président ñu ngi koy wax na ko de li ma koy ñaan. da ko mhm. sant da koy dox. ndax na maa ko man moom mooy yilif nag mooy sama premier nag maa ko man d'accord te maa ko jiitu responsable. Mhm. waaye nag mooy sama kilifa tey ak sama morom. Mhm. baax. loolu nag tax mu di ko wax loo xam ne ëllëg mooy tax mu gën a toog toog yi bu dëgër toogaay bu baax toogaay bu jub coow li baax ci biir Sénégal suñ toll. Mm-hmm. président. Mm-hmm. coow li pare nag. yaay kilifa Sénégal ak Sénégal yi la constitution. Mm-hmm. utal solution ci coow lii xew ku ne ku ne di bugg a tàkk. président xool ci solution yow yàlla may kàttan mën mën nga mën koo def def ko. loolu laa man Pierre Mahane Koundé. ñu am yaakaar ne dina dégg kàddu yooyu la eh, ndax. ah yàlla na ko service euh, du ñàkk message bi dina jàll ñu lay jaajëfal bu baax a baax Pierre Mahane Gomis. Ah, maa lay gërëm maa lay sat di gërëm waa rajo bi ko ñaan mu yokk lool da am doon télévision ak yéen di ñaan ngeen di ñu woo rek. amiin amiin merci ah, beaucoup ñun bu ñu joxul bu ngeen rek du ñu a wax. d'accord.